ngir gëna a mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ni moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu la notification Guanha Internet লাগে

waaw tay ji dañu togon rek ñun ñi nga xamé né tay ñoo union développement ak action développement de la femme ñun jigéen ñi bobu légui ñu nekk ci ay projet di liggéey di nekk di sét lo xamé né tay ji day indi yokkute ci ñun nekk ci développement di nekk ci ay formation di liggéey bobu ba légui ñu dajé nak tay ji mois de mars mu nekk euh, wéru jigéen ñi ndax néna le 1er mars ba le 30 yépp wéru jigéen ñi la ñu boole suñu xol boole suñu xalaat ànd te yàlla tax ànd jàmm rek ànd di échangeante ñun jigéen ñëpp bi ñu toogee waxtaan ñu ne nañ leen def pour quoi pas di dem di génn di fekk ji pour quoi pas ñun suñu gox tam mënuñu ko jëmmal jëmmal suñu bopp toog fi def suñu benn union boo xamee ne dañuy def suñu journée de la femme. waaye union bi moom ay jigéen lañu te jigéen ñi seen doole bariwul comme jigéen ñi nag seen doole bariwul ñun ñoo doole suñuy ñun ñoo boole suñuy doole di cotiser di natt. di jàppalante sunu biir lu waaye cotiser kenn ku si nekk ñu boole defar sunu saabu lu waay cotiser kenn ku si nekk ñu def sunu benn keesu avec ku indi ñu bind ku indi ñu indi bu ñu toogee tey jii ba yàlla def tey sunuy intérêt bi ñu boole ko dajale ko def ci formation savon bi ñu boolee def sunuy formation savon nag yàlla defal ñu ci barke yàlla defal ñu ci jàmm muy madaar bi ñu di sant nag ki nga xamee ne tey jii ñun ñëpp ñoo ngi koy boole di ko sant muy sunu doole ndaxte kenn ku si nekk boo amul doole wéruloo doo mën a liggéey ci yu bari liggéey bi metti na waaye nag dañuy xam ne rek amuñu pexe waaye liggéey bi machine moo koy liggéey waaye ëllëg nag bu ñu góor góorgóorloo tuuti rek xëñ na responsable yi nga xamee ne tey ji waxtaan nañu ñoom waxtaan nañu ñoom ku ci mel ni tey ji monsieur le maire bu Thiaroye ñëw na fi monsieur le maire bu waa mbay seen monsieur le bu Cambérène ñëw na fi soxna May Diagne tamit ñëw na fi te ñoo ñëpp ñuy ñëw rek di jàppale groupement de famille di jàppale jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg liggéey te amuñu ay porte te ñun nag wax dëgg yàlla ku ñu bëmax rek ñu dem te ñoom tam nee nañu dinañ ci jàpp ba ñun ñëpp xam ne jàpp nañ ci ñun nag tàllal nañu maire yëpp seen suñu loxo may joxaat kàddu ki nga xam ne tey ji moom mooy sama coordinatrice muy Aïssatou Diouf ñu ànd di liggéey boobu ba léegi moom tamit bi yaatal ma ci lool nag ba ma ñemee man tamit ba nga xamee ne ma koy sant di ko gërëm ndaxte nag nit bu fekkee ne dañ la jiital te ñi nga jiital gënoo leen ñi nga jiital wax deug yalla nga nekk ay nga nekk jigen comme yow te andu jigen la te musuma deg ci ñom ñi dara lo xamé ne tay ji lu ñaaw suñu digënté may lu and bi di sante len di len gëreum ak Tida jeju ak ami euh, mère ami mat euh, maal ak euh, Kiné Diouf ñi ci nekk yépp ñom ñëpp sax ak nogay ñom ñëpp kenn ko ci limul sax bayyi sama rom sax day né bolé boolewuloo ko ci waye suma né action et développement de la banlieue limna ñëpp jital bi ngeen ma jital nak xamna fi ngeen ma tek jàpp naa leen man tey nee naa lu ma ñàkk tey ci journée bi ak ci bës bi jaral ngeen ma ko bëgguma ci lenn lu dul rek ñu réussir lu dul ñi nga xamee ne tey ñoo fi nekk te war ñu dimbali ñu dimbali ñu te defe naa ne tey ji bi ñu ñëwee kenn ku si nekk wax na ba ñu dégg seen i kàddu maa ngi sant bu baax di gërëm tam ki nga xamante mooy Aïssatou Diouf di ko jox kàddu gi moom tam mu am na. di kontaan ci premier édition bi ñu def mu réussir di ci kontaan di sant yàlla bu baax. di sant waa action yi développement ndax ay responsable yoo xamante ne ay présidente calebasse lañ ñu dajaloo di yëngu ci développement organiser ko première fois mu réussir di sant yàlla bu baax daal. waa lu dul euh, journée bi réussir na lu ñuy teg suñu kanam mooy gën a taxawalaat formation bi euh, di gën a produire di jaay pour ndóol mi jóge fi daal loolu daal la ñuy gis ak jàppale ñu fi ñëw euh, maire yi fi ñëw ak ñooñu jàppale ñu ndax ñun amuñu moyen dañuy dem. difficilement suñuy dërëm ak suñuy ñaan dërëm la ñuy boole gisuñu kenn koo xam ne jàppale nañu organiser nañ ko invité autorité ñi ngi am jortu ne dinañ ci dugal seen loxo pour mu gën a yombal liggéey bi ñu gën a avancé ndool mi gën a wàññeeku bu baax waaw pour ñu ñëw adhéré ñun moom dañoo tàllal suñu loxo ñëpp bugg ñëpp ñoo bokk ci jigéen toogaay jeex daal jigéen ñi di yëngu gën a avancé am réussite ndax ñëpp lañ tàllal loxo tëjaluñu kenn bunt ku ñu tàllal loxo pare nañ pour liggéey ak yow won la yoon bi mhm, tey bëgg nañ jigéen toogaay jeex daal jigéen ñëpp jug am ci lu ñu jàpp ndax soo mënee di produit defar ay savon di jox boutique di nga dem ba dootoo tàllal sa loxo kenn dootoo yaakaar kenn mën a defar sa madaar mën a defar sa javel mën a defar sa fruits légumes ak yooyu céréales ak lépp day permettre jigéen ñëpp suñ ko mënee kenn dootul sonn dinañ mën di demal suñu bopp am suñu indépendance bopp daal. Mhm, ok kontaan journée bi moom dañ cee am bégte kontaan ndax kom mois de mars ku nekk xam na ni weeru jigéen ñi ñu toog xool ñun tamit comme ni ko sama naataango yi waxee rek ñu organiser wu nekk benn suudewu ndax ñun ku nekk xam ne ni jigéen mooy mère de famille te jigéen ay def lépp biñ toogee ba xam ne jigéen mooy def lépp ñu ñu ne nañu booloo nekk benn àndandoor xàccandoor dóorandoor pour mën a liggéey suqali suñu bopp ak suñu njaboot. ñun kay action bi ñuy def mooy action et développement ñun dañoo booloo nekk benn mooy li ma wax rek suudewu ñun ñëpp benn la kenn ci nit kenn ci ñun rek mën na représenter ñun ñëpp ñun ci loolu la ñuy dox bëgg nag jigéen ñi ñëpp takku ndax ñaari loxo mooy takk tubéy ñaari loxo mooy takk sër dañoo bëgg jigéen léegi violation yi am yëpp mu jeex bu benn jigéen di tàll loxo wala dem fenn ci ONG yi wala ci yenn entreprise yi ñiy néew del doole jigéen ndax xaalis te xam naa ne lii ñu def ñii tey ku nekk gis na li ñu produit savon médical bi ñu defar saabu fóot eau de madaal bi loolu buñ si teewee comme niñ ko waxee fruits léegim bi ak lépp loo xamante ne lu jigéen soxla ci këram ñun moom la ñuy liggéey yaakaar naa lii ñu wax nii ak ñi fi ñëw ñëpp autorité yi fi ñëw yëpp niñ leen tàllalee loxo suñ ñu jàppalee yaakaar naa benn jigéen dootul sonn te jigéen du tàllalate loxo kenn góor ñun si loolu la ñuy taxaw dañoo bëgg jigéen am fulla am fayda ndóol bi jóg fii jigéen bu soxla dara mu defal ko boppam ndax gis nañ jigéen yi ni ñu leen di ñàkkalee fayda à chaque fois te li ci ëpp ëpp ëpp problème xaalis la te boo demee ba mën a am sa liggéey bii am sa métier yaakaar naa kenn du la yeb foo tàllal loxo kenn du la delloo ginnaaw ñun ci loolu la ñuy dox merci beaucoup ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notification